xërëmkat yi rek ñoo yëngatu muy nitu tarixa yi dëppkatu kees yi ku dëpp kees barki sëriñ murit tiijaan laayeen ñeseen canaba canaba xaadir sàcc rek sàcc rek administratif bi ñofine ñoo sàcc rek koo ci dugg biram bu sàccee ba pare diwéy sama sëriñ barki sëriñ diw fecckatu tànde béer barki sëriñ diw demkatu concert barki sëriñ diw mbaru lamb barki sëriñ diw déggaguma au nom du père et du fils Saint-Esprit amen de déggaguma ko de déggaguma fi tamit kuy cëkkal ibaadu moom déggaguma ko fi au fi du fils cinq cinq cinq cinq pour cent yi déggaguma ko de quatre vingt quinze pour cent yi daal xam naa ne ñoo yëngal aras bu duul amee ñoom la bu biiral amee ñoom la bu viol amee ñoom la doomeraam yi fenkat yi ñoon la soskat yi ñoom la saagakat yi ñoom la sàcc yi ñoom la wurekat yi ñoom la kartekatu xaalis yi ñoom la naankatu sàngara yi ñoom la feesalkatu boîte de nuit yi ñoom la dëppkatu table guddi yi ñoom la ñoom booy lim doo ci génn tarixañ gone yaa goog boo ci seppee ñuy toog ñi ñi ñiy toog di salaatul fatiha lu tuuti lañ dafa mel ni paanu paanu ndox nga ñëw toq sa baaraam boo demee tuuba ñee damay wax ak benn paa mu ne ma mu ne ma xam nga dégg nga maam man gis naa ne xaaral kii ma wàccee pare wax li may wax ba pare parce que paa bi mënu ma koo mooy xam naa ne mi ngi fi xaaral ma dindi rawxaankat yi parce que man jinne yi laay xeexal ni jinne Sénégal yi laay xeexal waa ñag yi ñëw dugg ci di partager seen charlatan les charlatans de merde la wun suulee la paa bi ne ma xam nga man li ngay wax ci tarixa yi am na lu may ànd ak yow ndax booy laal murit yi murit yi defe naa ñoo gën a agressif ci tarixa yëpp ma ne ko ah parce que parce que ñaseen nga mu ne ma waaw ma ne ko kaay ma wax la nag après ci ay fait booy soog a tàmbali danga naan murit yi ñoo gën a agressif mais déedéet bu ma demee ba ci biir ba xool ba xoolaat ak affaire yi ni muy demee murit yi foo gisee ab murit bu dóor ci xaal di nga gis beneen murit ca wet ga mu lànk génn bàllu àq ñaawlu li kooku def waaye yow yow góor gi yow moo yow yow yow ñaseen bi yow mu ne ma waaw finalement nag gis naa ne yéen a gën a agressif gis naa ne nag Baye Mbaye MC Niass commencé na génn di fair play moo nar a njëkk commencé histoire fair play ci ñaseen parce que yéen tegal sa am na benn américain bu fi wàccoon senegal ñëw dëkk si bàyyi États-Unis yëpp ak passeport bu baax ba ak développement ba ak mbaaxaay ga wàcc si ba ñëw boof ci seen suuf ndax bëgg Baay Ñas ñu noq ko ay jaasi jam ko ay paaka ba mu sedd guy dégguma kenn wax ci ci yéen ñaaw nu mbir mi benn tegal sa baaraam mu teg booy bii duulkat bii mujjee dem ci aji saar jàpp ngeen ko fi noq ko gisuma ku génn baalu neel ñaar mu ne ma ñaar taal ngeen kër jàmbur dégguma ko wax yéen ñuuse rek ngeen di def diine joo xam ne nag day ñuuse rek diine ñuuse nag diine ñu se kooku du diine lislaam l'islam l'islam fair play la lislaam dialogue la l'islam ba jaasiye jole dañ leen ne bu leen attaqué kenn waaye ku leen attaqué fayu leen waaye yéen kenn du leen attaqué kay wax ak yéen waxut laaj rek tey ñu rey la laaj rek tey sa bajo yaay génn laaj rek sa data ndey laaj rek ci nga commencé nekk doomu caga laaj boo laajtee rek ñu def la doomu caga boo laajtee bu sa yaay dee woon sax ñu jëli ko armeel ya indi teg loolu mooy seen diine boo tuddee maay ñu saaga la tudd muntaxaa ñu saaga la nga tudd mbay si ñu saaga la tudd duudu laay ñu saaga la tudd cerno ma ca kaw ak sa suuf cerno su pëli sax duñ saaga ñoom moom duñ saaga moom ñoom boobu ba tey maa ngi cerno ca kaw ak sa suuf waaye gisaguma për bu ne kutti yu ma gisaguma ko de murit tiijaan laayeen ñi confisqué ay santu jàmbur ñoo ci ñëw nag xam nga olof dafa saay-saay triande triyande rek lañ mën triande nañ mbàkke baaba mbàkke triande fii si fexe ba dugal ko bëgg nag moom nit ñi ku wax aca ku wax aca yaay papa ndey mbalit mbalit daal nga mérité ñoom nee nañ dañoo civilisé de boo leen tuddee rek amuñu luñ la mën a indi mënuñu la indil xaala mun la ñu ne indil leneen saaga rek saaga rek bàyyi fi seen gunóor yi nag ñuy def lu ne wen ku génn wax lu lu dëpp suuf koo ci gis mu àndal ba joxante loxo cérémonie officielle ay sàcc rek la ñuy waxal procureur ñu ngi gërëm premier ministre ñu ngi gërëm l'état nangam nangam ñu ngi gërëm eh, eh, ministre tel ñu ngi gërëm nangam nangam ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm sàcc rek la ñuy gërëm diine juy gërëm sàcc ma ci yéen rek laa ko gis danaa ko wax de di dund nag fayeeku salaire weer de ma fayeeku du ma torox de weer dina dee danaa fayeeku danaa envoyé ñu jël ci impôt bi dugalaat ma xaaraat leen rek guuxaat wax ji ñëwaat impôt bi woom tànk yéen a ngi koy lekk damay guux rek di leen def comme jaadu ñàngoor buuf buuf buuf dama leen di buusu rek ba keroog ngeen di yàbbi bu ma gisee nag sëriñ si yëpp mel ni Raphaël Mbacke mii ak papa Ibrahima Dramé ak père Ousmane Dramé ak euh, nu mu tuddati Njool Fuuta ak keneen ak keneen ma ma wàcc leen waaye tànk yéen ngi ngi lëloo lëngoog ay Moussa Fall Macky Sall Antoine Diome doomi yi doomi xaraam yooyu kuy lëngoog doomi xaraam rek mérité nga wax ñu ne man nag du ma leen ko wax waaye dinaa leen wax seen jëf de ku fi wax rek dinaa la wax falaa yem nag kuy saaga nag saagal boo paree nattal saaga bi ma saaga nga yenn ko ma takkal la ko ba mu dëgër defal la ko benn emballage bu rafet ci 31 décembre jox la nga dem joxi sa ndey